moo doon noonu moo du xarañ loolu le roc de parcelle seetetet loxo bi diis na de seetetet daam seen a ngi noonu jàmbaar wrestling académie ba nga ne le baa ngi noonu

Maodo ngi noonu di naan Gora Sow ngi noonu kan lay woo eh grand bi naka mu lépp jaam loolu doomu noonu Modou xarañ loolu le roc de parcelle seet te loxo bi diis de seet te daam seen a ngi noonu jàmbaar wrestling academy ba saw le baa ngi noon waa ngi noonu taxaw na de naka taxaw na de mi ngi ci de Modou a noonu di naan góor soo ngi noonu kan lay woo